mairie bu Touba doxati ay jéego yu am solo ci wàllu ndox mi ci biir dëkk bu sell bi di Touba gannaaw jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi ko doon tàmbali di nemmiku ca Mboussobé Al Azhar forage bi nga xamante ni bi ma fa nekk am ay gàllankoor jébbal na almuwaar ak pompe bu bees ñi nga xamante ni bi ñoo di hydraulique ak maawu raxmati Ahmadou Bamba Mar mii nag bokk ci techniciens yi nga xam ne ñoo yore lépp lu jëm ci fànn googule ci biir mairie bu Touba. ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi joxe tey benn pompe. Euh, électropompe immergée de 75 kW bu nga débit bi 200 m3 heure avec euh, une HMT de 90 m. donc l'objectif de euh, remplacer comme nous avons Bamba remplacer remplacer pompe bi est euh, NAM Al bi débit actuellement est en en dessous du débit d'exploitation débit d'exploitation forage je pense 180 m3 heure donc bu ñu fa yóbbee pompe bi dina mën tax ñu atteindre ce ce débit d'exploitation de 180 m3 mètres cubes heure et ainsi loolu dina tax euh, forage bi mëna a jariñ population bu gëna bari, bëri ak magal gi di ñëw donc lool moy objectif joxé joxé pompe bi et inshallah, allah danañ and euh, ak effort ak Maawu Rahmati ngir téwé installation pompe bi et aussi pompe buñ fay jëlé comme niko ko Bamba waxee sànq danañ aussi suivre et puis euh, les accompagner

Euh, tamit aussi di wax ko ne pompe bii nii ñu ngi koy yóbbu comme ni ko Pablo waxee Mbusoobe ou bien teen maam Cheikh Ndaamal Azar pour mën a booster production bi parce que pompe boo fa nekk naam baax na ma ngay xelli la mu war a xelli waaye dañoo bëgg yokk production bi ba nga xamante ne la muy génn ci waxtu mën a ful maanaam mën a yokk ba nga xamante ne nii yenn ruq-ruqaan yi nga xamante ne ñu ngi am jafe-jafe ndox parce que fan yee ca gannaaw. dem nañ fa xool gis nañ ne ay ruq yoo xamante ne am nañ jafe-jafe ndox moo tax ñu bëgg ko corriger en même temps aussi duñ ci yam danañ def ay opération de rectification de réseau ci réseau bi ci foofu noonu nga xamante ne dinañ am ay installation yoo xamante ne dëppalu norme ñu fexe ba rectifier waat ko ba nga xamante ne nii ndox mi dina mën a àgg fu sori. Maaw Rahmati jàpp ne lii moom duñ ne ko ndax boobu ba léegi fépp foo xam ne jàmbat nañ fa pompe rek mairie bu Touba ci taxaw Pape Lo mii mooy rewoon seen kàddu. ñëw fi maire Touba ñu ngi koy gërëm di ko sant jox pompe ñi yore ndox mi muy Maaw Rahmati ak Ofor parce que seetlu nañ ne forage yu Ndam Al dafa am ay difficulté pompe nga fa sax mi ngi dox mais dafa am ay difficulté ba couvrir zone yi ñu war a couvrir yëpp kon ñi sant maire ci loolu lii nag du lu bees ndax yàggul dara forage wu Rahmatul Ahad mairie Touba joxe na pompe ak armoire ñu installé ko foofu bi ko defee aussi sentir nañ ne yokk na production wu xayra manque ndox bu fa nekkoon waaye nekku ne surtout xayra 2 ak daaru minam ak côté daaru xudóos ba ci madiana 1 ak 2 di aussi suñ ko defee dana courir teenu maam Cheikh sax la ñuy wax parce que village bi mooy ndaam al azar mais du ndaam al azar yëpp moo manqué ndox daf ci am ay ruq yoo xam ne amuñu ndox fu mel ne fu ñuy wax teen maam Cheikh côté poste de santé bi côté ñoo manqué ndox ak yenn yi nga xam ne forage bi dina leen couvrir mu xaw koo sori. maire bu Touba nag gën a fet liwaat laxasaayam ci lépp lu jëm ci wàllu ndox mi donte état la war waaye mu jàpp ne moom moo ko war a xeex ci biir dëkk bu sell bi di Touba muy ñàkkum ndox mi tax na sax mu gën a yokk nag personnel am ci wàllu li nga xam ne moo di xereñ yi nga xam ne ñoom ñooy saytu liggéey bi El Hadj Ndiaye programme mi di ñu ci leeral. mairie bi mi ngi koy jàpp ci ndox mi moo waral tey ñu recruter ñii nga tey muy ay ingénieurs yoo xam ne dañu leen jëm ñii jëm ci wàllu hydraulique ñii di ay techniciens ngir lan. pompe yu ñu jël ak leneen loo xam ne nii réseau bi laaj na ko ñu war cee mën a jàppale effort moo tax maire bi jël effort tey euh, recruter ñi ñu nekk fi ngir lépp lu luñ joxe ñu ànd koog waa effort ak waa maaw ngir doxal ko ci biir dëkk bi. ñu jàpp ne nag màggal Touba ay fan yu néew moo ci dox ba tax na saa su dañuy wéy di nemmiku forage yi ak seen i jafe-jafe di ca def lépp lu ñu mën ngir ñu mën a màggal ci lu dul jafe-jafe ci wàllum ndox.